wa innaka la tulaqa alquran min ladun xakim huwa alqail huwa alqail xayrukum man taalama alquran wa allamahu wa qaala aydan ahlul quran hum ahlullahi wa xaasatihi amma baadu bokki jullit yi bokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Saya Mbaye xalifa maam Cheikh Mbaye ñu ngi leen nuyu nuyoob lislaam wa naqul lakum assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu ñi ngi jagleel nuyoo nag sëriñ bi nee na sëriñ saay mi ngi ñu ngi jagleel nuyoo nuyoo sëriñ Cheikh Makhtar Lo Makhtar Naar Lo ak mbooleem ñu koy jàppale ci mission bu màgg bii nga xam ne mooy saytu daara ji mahad bi ñu koy saytu ak ñu koy jàngale ñëpp ñu ngi itam mbooleem kilifa diine yi fi teew wala seeni représentant di nuyu itam al jamayaat al islami association islamique ñi fi teew yépp du nuyu itam autorité yi fi teew moo xam ministre walla gouverneur résion luga ba ci préfet ak autorités yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Koki muy sous-préfet ak maire bi ak ñépp sëriñ bi mi ngi leen nuyu. gannaaw loolu bokk jullit yi ñi ngi am kontante di leen jotal cant yoo xam ne nii am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ak ñaan bu sell bu jege ca sëriñ Saye Mbaye mi nga xam ne tey moo fi xalifa maam Cheikh Mbaye di ko jagleel sëñ Maxtaar Naar Lo ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy taxaw institut islamique bi muy jàngalekat ak ñi koy saytu ak jàngalekat yi sëriñ bi jàpp na ne ñoom duñ ko wutu ñoo ko wutu ci liggéey bu mag bii liggéey bu rëy bii nga xam ne ñi ngi koy tax ñi ngi ci taxawee gën jaa gën jaa anam bi taxawaay ni mu gën a rafete muy nga xam ne waajib kifaaya la jàngale alxuraan fardu kifaaya ah, bu ko ñenn ñi say ko ñenn ñi sasoo rawet nga daara ji nga xam ne maam ji tedd ñoom moo joxe digal sëñ Massaxir Lo kon mel na ne ñi fi nekk ñëpp moom lañ moom lañ fi wutu ah li ñuy wax rek ne sëñ Maxtaar ak ñu ko jàppale dëggal nañ te duñ dañ di dëggal woote boobu nga xam ne ak ñaandoo boobu nga xam ne maam Cheikh mbay radiyallahu anhu woowoon na ko sëñ ma saxirloo ne ko kaay dem Kokki boo demee nga jàngal jullit yii yëpp téereb yàlla bi mu ne ko demal Kokki boo demee nga jàngal képp koo xam ne nii ñëw na na nga ko jàngal bu am xaaj seen lépp dana fekk incha allah ñu ndigal yàlla loolu moo tax sëñ ma saxir loo daan wax ne dama am sëriñ bu mat sëriñ mu digal ma ndigal lu mat ndigal ma jëfe ko jàng alxuraan sëñ ma saxir loo radiyallahu mu taxaw ci wéel ndigal loolu nga xam ne sëriñam ba di turandoom digaloon na ko mu taxaw ci ci anam gën rafet taxawaay dimbali nag melo yi nga xam ne moom la waa alxuraan melo yoo muy muñ lépp loo xam ne naqar la wala jafe-jafe wala métit sëñ ma saxir loo muñoon ko fii ci tàmbali ba ak nangu dogalu yàlla ak lu ci yàlla ak xër ci joxe boppam ak bakkanam ak alalam lépp mu jox ko ci daar ji mu gënal ko leneen lu dul moom loolu moo tax mu daan wax ne boo ku doon dey képp koo xam na ni ndongo ci jàng bi dama koy fay fay juróom jàngal ko alxuraan teqali ko moom ba yomal xiyaam loolu moo doon mu sëñ masaxiloo sëñ masaxiloo kon ku xaboon la tegtal suñu borom boobu taala mi wax ne man salasi yoqradu laa xardan asana fa yudaafiloo addaafan kasira loolu teel na koo xam loolu la ana kan mooy lebal yàlla lebal yàlla lu rafet bu ko defee mu ful ko lu baree baree baree bari suñ ma kon ci loolu la nekkoon comme sëriñ Saer mi ngi dellusi rek di sant cant goo xam ne ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ci ñépp ñi nga xam ne ñooy dundal daara ji di ci def seen alal te duñ ci jóg di ko def ba tey jii daara ji agsi fi agsi ci wàllu yaatal ak modernité ci wàllu yépp nag ci wàllu dëkkawaay yeeg wàllu njàng mi lépp tey agsi na foo xam ne nii xel mënu koo nangu ak sura tey ci wàllu modernité ak yaatal ci daye boo xam ne nii ah loolu ko sëriñ bi waxoon sëriñ bi waxoon ne lépp lu la fekk loolu moo koy firndeel tey it insha allahu loolu kënam la jëm ah sëriñ bi it nee na woon ñi ngi sant kon ñëpp ñoo xam ne ñu ngi taxaw ci daara ji di ci def seen alal di ko dundal di sant itam état bi ndax def na ay initiative ci at yi yoo xam ne nii ci alxuraan lu ko jëmale muy tabax ay daara moderne ak recruter ak say sëriñi daara di leen former delloon ci seen daara di leen fay loolu ay étape la yoo xam ne ni état bi moo ko def ñu ngi ko ci sant waaye nag ñu ngi koy soññ mu gën a dolli ndax alxuraan daara alxuraan yi ñoo daara école yi nga xam ne école publique ñoo war a yemoo ci état bi kon ñu ngi soññ ci état bi mu gën a dolli ay ndimbalam ak képp koo xam ne ni rek yaa ngi nekk ahlul xayr di jëf yiw ak lu rafet nga dolli ci daara ji ndax daara ji yaatoo na ko te loolu dina nekk dimbale daara ji ba nga xam ne ñu fi nekk danañ mën a mission bi nga xam ne moom lañ teg seen ko danañ ko mën a matal ba cëg gannaaw loolu nag ñu ngi ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu gën a yëkkati daara ji gën a yëkkati mbiri daara ji te sàmm sëñ Maxtaar Naarloo ak mbooleem ñu koy ñu koy jàppale ak fu mën a jóge rek ci wàllu gu rek ñu ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu jàppale leen dimbale leen mbay leen wér gu yaram ak gudd fan ñu ngi ñaan itam ndongo yi ak seeni waajur ñu ngi ñaan tawfeex ak dajaax ñu ngi sant itam ci place bi ñi nga xam ne ñoo génne woon ci daara ji bu yàgg yàgg bi daara ji sosoo ah ñu di ci tudd rek sëriñ Sambay radiyallahu anhu bu ñu taxaw war nañ ko fàttaliku ndax bokk na ci nga xam ne bàyyi nañ fi ay jeexital yoo xam ne nii day sax ci taarix Sénégal ba yowmal xiyaam ak umma islaami yëpp. naka noonu itam ku ci mel ne alhaaj ni Mbay radiyallaahu anhu nga xam ne ñoom ñëpp fii lañ mokkale alxuraan te itam nekkoon na kuy jëmmal alxuraan di dimbale waa alxuraan ak ku ci mel ne alxaaji euh, Mubaarak Ahmad Mubaarak Lo moom fa jasaahumullaahu jamiian anna walil islaam xayra may shaabihi al muhsiniin ñu ngi sant itam ki nga xam ne mooy jiite jamiya jamiya euh, xiri yi kokke jamiyatu xiriji mahat ki nga xam ne mu ko jiitee ak membre yëpp sëriñ bi nag ngi leen sant ndax effort yi nga xam ne ñu ngi koy def guddeeg bëccëg ci li jëmale daaray Koki bokk na ci mubaadara bi nga xam ne mooy organisation ijtimaa bi nga xam ne multaxa ahlul quran la nga xam ne ñoom ñu ko initié ñoo ko tàmbali woon ci jamono sëñ Masahir ba léegi ñu ngi leen sant ñu ngi daal na ko noonu ñu ngi sant ñëpp wa axiru daawaana alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa barakaatuhu eh, jërëjëf sunu sëriñ sëriñ Cheikh Lo mu doon wax ci turu xalifa maam Cheikh Mbay al eh, ñu koy ñaanal yàlla fan wu gudd ànd ak wér eh, su ko defee am na benn film bu ñu préparé incha allah waaye balaa boobu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 waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ayuhal xudurul karim fi kokki wa ma xawlaha mbokki jullit yi mbokki daaray kokki mbokki taalibe yi tout rang confondu ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak ñu ngi fii tey ci daaray Koki téewal fii ñëpp teewal fii tamit jullit ñëpp waaye particulièrement di téewal délégation étrangère mu di malien guinéen mauritanien burkinabé ivoirien extra balaa ñuy tàmbale waxtaan bi dañuy nuyu suñu délégation bi nga xam ne Cheikhou Sissoko mu ngi ci biir Babilé Sissoko Babilé Traoré jóge ba Mali Cheikhou Sissoko jóge ba Angola ñu ngi leen di jaajëfal di si seen teewaay di nuyu Dahaba Tunkara tamit ak mbooloom bu muy àndal. Mesdames et messieurs, ici présents à vos de qualité, avant tout, je me réjouis de vous présenter l'Institut islamique qui est plus grand templier du savoir ici en Afrique de l'Ouest, particulièrement dans le monde. Ladies gentlemen, all for over the world, from Africa, from America, ASEAN, and Europe. We are the honor and the privilege to welcome you in your ancestry, Ame of Koki. It was a real pleasure, the temple of the knowledge of education and re-education for awareness and integration and adaptation of young people in the world. mare mun soni ko oye bani so kuñini a toxon ata jamu mama xa mamana oye lenki ko ki baran lexeke lenki ogarini igatini fumbe danga feddel kolere wol fon xannenga daray ko kinni institut fumbe ga tu angara tu ayani xara lexe begatu allinera anna dron taxun kita anna tuwaxun kita anna savarn kita inan tongondi duna do lahara agan nafana agan agan marimu nafana agan marimu nafana na toxo inta fofotin nanga aya ni temple du savoir fumegretu lenki kotake fumeni ga harnga ira ko khalame a été les 5497 élèves fumegretu yani yere gi ga gulnyanga e harnga i harngu ni yere ti alla danga i gande fe i jim fe i soxor xe fe i fofa fe ana harmo nya kitenga oye aramo hon karanga tigana kenga siring oye mamana pasque agar fumme ñango daga aɗa fo hooreya ñango daga oye tigana kenga oye mamana kenga siri oye tinadanga jasakumullahu hayran jasakumullahu hayran a gani malien ga burkina be se susiginte nga doxome an nan duroxote en talan cigindi nanti ko ki baray ke lengono ko se su gerere ali yere ida xarangundi fi sabilillahi onan duroxoto kenga siri ono haqlen toxoy nan ti se sugara godewutu angardema kokki andanya fi sabilillahi danga se sugala godewutu angaro kokki andanya allah danga te angar fofo nya allah danga angana daga qiyamul layli ko tanga angan dron ta hunyi nonga anga sunyi nonga kane o ya hakuni kenga puna diga mun defondi o danga ni baman khaninga pour o marem bamuruna kotna fam balimaw an b'aw bɛ fɔ la ka taa mali la côte niger kana fabla euh, euh, guinée-bissau la fo gambia an be bee fo la aw sigiɲɔgɔn be yɔrɔ o an b'a fɔ la ɲankonto babile taraware i la jama mun bɔra mali la an ɲaw ye an bɔ anw kanta aw ye ma aw ye sacrifice o sacrifice kɛ an b'aw ramasiya la o la mais an b'a fɔ lawale bi de ko kite denmisɛnnin mun bɛ yan u bɛ kalan a bɛ 5497 denmisɛnninw bɔ olu bɛɛ bɛ balo yan dumuni o la sinɔgɔ uda yoro ula kara yoro ula minowo a bee be seigne matar le bolo ana la dembeya vraiment uma toosi to añe an be alla dalilaw ye an be la dalilaw ye ala ma sini kene ke seigne ye fa la mission mu a ye damina pour ko ki ma a tara hera la ka fo ye bi ka fo ye bi tem nin tun ye la jeunesse de uko ɓe kumala jeunesse de jeunesse ɓe na réussir ñamina pour kana boola an mbaw remercier oɗo an ɓe ka hakkiltoɗa pour ka donam mbokk yi dinaa tënk ci wolof tuuti nga baal ma àq tuuti rek ñu ngi wax ne role bi tey elle parle de la responsabilité de la jeunesse au service de la société à la lumière du Coran loolu noonu thème bi tey la génn mais bu ñu ko seetlu ba seet ne moom bu mu ko tàmbali ak léegi du tey depuis 1939 sëñ Ahmed Sakhir dafa doglu ci boromam jël lépp xam ne su bu bëggee liggéeyal réew mi am na lu ko war waaye dafa miser fu nga xam ne moo jar a miser parce que Turquie nee nañu amul benn réew bu mën a développer sans jeunesse am te boo leen xoolee bu baax di ngeen gis ne sëñ Ahmed Sakhir Lo. moom ci jeunesse su réewam la jël misé moom dafa misé ci jeunesse su continent mooy jeunesse africaine boo xoolee jeunesse yëpp yaa ngi génn fépp ci Afrique di ñëw wuutewu fii di ñëw jàng si fii xam-xam yemu ca mu dogu boromam def ñàqam def dooleem def lépp kemtulaay kattam ngir yàlla may ko lu mu mun a njëriñee jeunesse am. Mhm. boobu nag. Euh, tey moom la njëriñ. tey moom lañ jëriñ te xaarul dara si ñoom mhm. jeunesse boobu tey moom lañ jëriñ te xaarul jeunesse si ñoom xanaa di ñaanal sëñ Matar projet bu mu am si jeunesse bi yàlla na ko yàlla eggali si jàmm ak di leen ñaanal tamit jeunesse bi suñu suñu ñi nga xam ne ñoo jógee kokki ñoo fii tey yàlla may leen lépp fii nañ ñëw delloo tamit lépp fii si jeunesse su kokki bi ñu fexe ñaan yàlla tamit projet yu ñu am fi yàlla yàlla motali ko. macha allah waxtu bi xóot nañu di leen ñaanal waa xiir daaw na alhamdulilah. Eh, jërëjëf Cheikh Ibrahima mu doon wax ci turu délégation étrangère yi nga xam ne ñoo fi teew ci sous-région bi nga xam ne fii lañ nekkoon ci daara ji di jàng ñoo amoon taxawaay bu ràññeeku ñu ngi lay jaajëfal ci kàddu yi yal yàlla fay leen yiw eh, su ko defee dañuy woo Oustaz Alioune Sall Oustaz Alioune Sall incha allah. mu ñëw euh, joxe kàddoom waaye balaa muy agsi rek am na benn film de dix minutes boo xam ne pour résumer ci daara ji incha allah ñu bàyyi leen ngeen seetaan ko ci écran yi ñu continuer ak Oustaz Alioune Sall. kenn xamul fu mu